aj gi jeex kuy ñibbi rek bala ngaa ñibbi boo demee ba jekk nga dem wër kaaba gi juróom ñaari yoon ñu koy wax tawaafu tàggatoo tawaafu tàggatoo boobu nag borom xam-xam yi wuute nañ ci ab atteem waaye li wér mooy ci waree aj la bokk obligation la de lu tax loolu ibnu abbas radiallahu taala anhu moo wax ni ñoom sahaaba yi ak ku ne jullit digal nañ ne ngir li ñuy mujje def mooy wër kaaba bi bu ñu aj seen mu teg ca ne illa annahu xuffifa an il xaaidi wan nufasa mu ne waaye bu dee jigéen ju gis baax waaye falees na ko ci jigéen ju gis baax ak jigéen joo xam ne dafa wasin kon koo xam ne gisoo baax wasinoo kooku kon kenn wayafalu ko ci yow kon bu boobaa dafay daal di nekk firnde lu leer luy wane ne wër kaaba gi wëru tàggatoo ci waree bi la bokk kon loolu yàlla na ko yàlla mottali ba ñu dell ca njaboot ci jàmm waaye yàlla nañu yàlla nangul aj gi mbokk yi tey dañoo war a ay tomb yu wuute ñuy ñaan rawatina tomb bi nga xam ne moo aju ci li nga xam ne moom la jullit bi war a def ci journée bi ci soirée bi journée bu nekk ak soirée bu nekk am na ay jaamu yàlla yu la yàlla sant yii yu war la yii ay naafila la yu ñu sopp yooyu nag foofu la jaami yàlla yi di rawantee ku la gën a fonk farata yi di la gën a góorgóorlu ci naafila yi moo la gën a jege yàlla yàlla sunu boroom lan la wax yàlla nee na ci xadiisul qudsi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi yàlla nee na li gën li ma gën a sopp ci li ma jaam bi di jaamoo mooy li ma farataal ci moom kon farata yi moo war a jiitu boo matalee farata yi nga commencé nag di góorgóorlu ci naafile yi moo tax yàlla teg ca ni wa maa yazaalu abdi yataqarrabu ilayya binnawaafili xatta uhibba nee na jaam bi du dañ di góor góorgóorlu di ma jaamu ci naafile yi gannaaw ba farata yi wéyee nee na ba man yàlla damay mujj sopp jaam boobu ma soppal ko sama bopp way way mbokk yi ku yàlla soppal bopam texena motax mu tekkee ne fa idha ahbabtuhu neena jambi bu fonke farata yi di gor gor lu ci naafile yi bama beug ko kuntu sam'ahu alladhi yasmau bih neena damay dadi nop nek nopam bamuy degge mom jambom lolu moy lan moy jambi day dem ba day lo déglu ci ay nopam lo xamne ne neexuma man yàlla wa basarahu alladhi yubsiru bih Yalla neena buma beugé sama jamm bi damay nek ab gisam bi mi gisé bi makna dafa xaraamal ku ko xol wa yadahu allati yubtishu biha neena ma jamm bi buma ko beugé ngir fonk gam fonk farata ya di lu ci naafile ya gannaaw ga damay nek loxom ya nga xam mom lay jappé mbir ya di makna jaam bi yàlla da koy wattul ay loxoom ba du ci def lu yàlla bañ wa yat wa rijlahu allati yamshi biha nee na jaam bi bu fonkee farata yi di góorgóorlu ci naafile yi ba ma bëgg ko damay nekk tànkam yamuy doxe mu seex loo dox jëm ci loo xamante ne ngërëmal yàlla néew ci mbokk yi moo tax borom bi tabaraka wa taala të tëje loola jaam bi mel noonu yàlla ne bu ma jéggaloo danaa ko jéggal jaam bu mel noonu bu ma jéggaloo danaa ko jéggal bu ma laajee danaa ko jox lu mu muslu ci man ngir ma musal ko ci lu mu ragal man yàlla danaa ko ca musal kon ku bëgg a nekk nitu yàlla dëgg góorgóorlul ci farata yi ginnaaw nga góorgóorlul ci naafila yi yàlla dana la soppal boppam waaye yàlla dana la wattul say cër ba nga xamante ne da ngay seexlu lu bon waaye li nga xamante ne mooy lu baax yàlla dala ci xiir nga sawar ci kon moo tax lii ñuy am jaamu yàlla yoo xamante ne par semaine la par semaine yooyu danañ ci ñëw léegi jaamu yàlla yi nga xamante ne par semaine la ko yàlla yoonal sàkku ci yow am jaamu yàlla yoo xamante ne par weer la weer ba weer la ko yàlla sàkku ci yow am jaamu yàlla yoo xamante ne par at la at ba at la ko yàlla di sàkku ci yow am jaamu yàlla yoo xamante ne benn yoon ci sa dund la ko yàlla sàkku ci yow farata la mooy ñëw gannaaw farata ana yan nag mooy jaamu yàlla yi nga xam ne yàlla da koo farataal ci bés bi bala ñoo ñëw ci yi nga xam ne yàlla da koo sant jaam bi ci nit mu war cee góorgóorlu yàlla da koo sant jaam bi ci bis bi mu war cee góorgóorlu jaamu yàlla yi nga xamantene ci journée bi ak soirée bi la ko yàlla faratal ci jaam bi mooy julli jurom moy julli jurom julli jurom bis bu yàlla sak yàlla da koo farataal ci yow nga war ko joxe mbokk yi julli julli gogou nañ fa taxaw ndax te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa jàngale julli façon mu jangale woo wo xamantene nit ñi amatuñu ngànt saxaaba yi xër ci doon xoolaaka saytu jullig yonante bi sallallahu alayhi lu gën a ndaw ci jullig yonante bi nettali nañ ñu ko mbokk yi est-ce que xam nañu ne saxaaba yi yoronte bi sallallahu alayhi sax bu daan jàng ndànk nga xam ne comme tisbaar ak tàkkusaan nga xam ne du jàng ci kaw nan lañ ko daan seetloo xam ne mi ngi tari nga xam ne bu taxawee noppiwul day tari nee na dañ daan xool ñoom ci ginnaawam lañ daan nekk nee na dañuy gis si sikkim bi di yëngatu xam ne mi ngi jàng xoolo xoolo googu seetlu parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam sikkim bu rëy la ñoom ñi topp ci ginnaaw bu ñu xoolee kawari sikkim xam nga nit buy buy jàng yor sikkim bu rëy kawari sikkim bi day yëngatu ñoom bu ñu nekkee ci gannaawam ña ngay seetlu ne yonent baa ngi jàng kaw yi sikkim baa ngi yëngatu ñu ne ah, kon yonent baa ngi jàng de kon bu dee ci tisbaar ak tàkkusaan même day jàng ndànk nañ xool li muy jàng lu mu doon moo tax ñu fexe ba xam ne faatiha lay jàng teg ca comme nit nag fële la ko wuuteelee yeneen julli yi fële day jàng ca kaw fii day jàng nànk kon ñu xam ne da doon jàng nànk loolu ñu toxalal ñu ko xoola seetlu bu sew ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg bu daan julli tisbaar wala tàkkusaan nga xam ne nànk lay jàng bu jàngee faatiha ba sottal njaal beenu laaya bi muy jàng wala njaal beenu saar wi léeg-léeg da koy wax ci mu xaw a kawe ba saxaaba yi topp ci ginnaawam yëg ne saar sàngam lay jàng ngir ñoom ku mokkal saar woowu nga mën a jàng saar woowu ànd koog bu tumuranke sunna bu tumuranke la bariwul lu muy am buy jiite daf ko war di appliquer léeg-léeg ci kanamu ñi nga xamante ne ñoom lay jiite xamal leen ne bu jàngee ghayril jàng ko jàng ko ndànk ci tisbaar mu bëgg a jàng wan leen ne wa shamsi wa duhaaha lay jàng ci commencement bi mu ne wa shamsi wa duhaaha ba ñu ci ginnaawam dégg xam ne wa shamsi wa duhaaha la wax bu dee amma yatasaaluun mu ne amma yatasaaluun ba ñooñu xam ne amma yatasaaluun lay jàng mu continuer jàng ndànk moo tax ki ki doon nettali xadis boobu nee na wa yusmiuna al ayata ahyaana waaye du saa su ne la koy def de nee na parfois léeg-léeg danañu diktal aya bi nga xamne mom lay jàng ginnaw fatiha ci julli gi nga xamne mom lay yem waye mbokk yi ben fatali kep la bëgg def ci julli gogu jàll moy nit ki buy julli dafa wara fexe ba faratay julli mu mbokk yi bari na ci jaamu yàlla yi ño xamanteni la daloon waa ji ñëwoon ci jàkka ji fekk yonent bi sallallahu alaihi wa sallam tok ci jàkka ji muy julli daf leen di dal benn waay dafa mas a ñëw fekk yonent bi toog ci jàkk ji yonent bi waa ji xam nga day julli ñaari rakka nuyoo ko jàkk ji wala mu dee julleegul woon waxtu wa daa tàmbe mu ñëw war a julli waxtu waa ji ñëw dugg si jàkk ji yonent baa ngi koy xool mu dem julli ñëw fekk yonent bi fi mu toog mu jox ko loxo yonent bi sallallahu alayhi daan ne ko demal del mu fay ko nuyoo ne ko demal dellu nga julliwaat ndax julli woo waa ji dellu daa di julliwaat képp képptalaay kàttanam daal di ñëw nuyu yonent bi sallallahu alayhi bi fay ko ne ko demal nga dellu nga julliwaat julli woo de mu def ko ba muy ñetti yoon ci ñetteelu yoon bi waa ji daat ne yonent bi man de nii laa mën a jullee nii laa mën a jullee yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ne kon daa xamut mu ne ko mu wax ak moom jàngal ko julli mooy yi nga xamante ne bu ko boo ci échappé dara ci julli sa julli du baax ndax pilier ci julli faw da nga koy andi boo ko andiwul julli gi du baax moo pilier ci aj ñooyam